Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax ndeysaan comme niñ koy faral di defee rek ci émission yu bëri tey jii ndeysaan euh, émission bi nga xamante ne 28 pro moom moo koy dawal euh, tey jii ñoo ngi dalal ndaanaan bi nga xamante ne ñëpp duñ ko présenté ndax tey foo taxaw rek tudd Cheikhou Tanboy xam nañ ko nga xam ne jamono ji mu ngi si bégal nit ñi nekk si TikTok bi nekk ci YouTube bi yàlla xam na ne jamono yi nga xamante ni ñoo ngi koy woo di ko imposer émission bi amul jot waaye nag 28 pro moo doon ndeysaan télé bi nga xamante ni ndeysaan comme soxla rek lépp loo doon def rek danga nga ko bàyyi kon su ko defee rek euh, damay jàkkaaroog sama ndaanaan bi Seexu maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay yéen waa 28 mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. di nuyu sama yaay sama papa sama maam. ak sama xarit yi ma àndal. Mm-hmm. di leen wax dalee nag jàmm waa fii seen kër la. Euh, mu mel na euh, tey jii nii dañoo déplacé wu ñëw kër Seexu Tamboy seet si ko pour def ak moom émission. ndax euh, yàlla xam ne ne euh, jamono ji ñu toll moo ngi si TikTok bi ak YouTube bi di def lu am solo ba si barki démb rek ndeysaan euh, koor gi moo si joué loo xamante ne saa bu ma ndogoo rek ndeysaan dama dama fay dugg bëggoon nañoo xam maanaam sayxu wàllum TikTok ak wàllum kii art bi maanaam da nga doon dund théâtre avant wala da nga tëb-tëb rek dugg si TikTok bi waaw <coughs> ginnaaw ma la fayee nuyu hmm. nuyuwaat gars yi. Mm-hmm. surtout pour euh, xamal ko parce que ñu bari dañ ma koy laaj parfois. Mm-hmm. que ne Cheikhou da nga njëkkee TikTok wala da nga njëkkee nangam. Mm-hmm. man artiste comédien la théâtre laa yàgg def. peut-être bi may def TikTok sax jamono boo fekk na TikTok application bi génnagul. ñu ko doon woowee challenge. boobu laa ko doon def man ak ay yeneen gars yu nekk fii au Sénégal. mais par la suite si la ñëw TikTok ñëw xam nga. affaire yi gën a kii ku nekk di TikTok kenn xamatul kan mooy lii kan mooy laa man aussi ma ñëw dugg si mais yeex naa si dugg nag parce que booy xool euh, neuf mois laa ci yu dëgër yoo xam ne que concentré naa si TikTok bi mais man artiste laa YouTube laa maanaam daal suñu déggee sa wax sa biir wax maanaam TikTok bi daal un an yu mat dafa goo si dafa goo ko si daal non non non neuf mois lay toll parce que mois de juillet bi passé si laa si si laa indi kii temps booy bi mhm. voilà muy muy mars ba tey quoi waaw mu mel ne euh, Cheikhou euh, jamono ji ñu toll ay jamono doon nañ seetaan ay kiiwam mu mel ne maanaam avant TikTok bi def nga formation théâtre euh, jaar nga fu bari daal maanaam loolu moom moo la maanaam poussé si TikTok bi nga dem ba xalaat ne man mii nii maanaam war war naa mën a fés li may liggéey itam war naa mën a romb fii loolu moom moo la indi si TikTok bi wa laa yow da nga tëb tëb dugal benn vidéo mu jàll nga jaaree fa kii di ko dund. waaw man moom. dama yàgg gëm ne que nit ñi dañ may xam. tonte que du neex a dégg nag. parce que dama yàgg gëm li nekk ci man muy sama talent. yàgg gëm ne que li may def mën naa ko te bëgg naa ko te am naa patience bi te aar patience la. bu ci nekkee te amu patience doo dem. voilà par la suite maa ngi doon góorgóorlu nag di def ay vidéo parfois di dugal xam nga di def affaire di jafe ngay am ay ay ay une semaine nga am ay 200 vie ñu koy muñ di dem mais xamoon naa ne. xëcc bu daggul dikk. par la suite waaw par la suite si laa ne mm-hmm. pourquoi pas ma imposer gars yi sama li nga xam ne yàgg naa ko fooy avant lii mm-hmm. muy affaire xale yàgg naa ko fooy avant ma dugg ci aar mm-hmm. voilà si laa ko tenté mu gis ne que mi ngi jàll gars yi ñu ngi koy bëgg après si laa continuer continuer bu njëkk dama ko doon wax mais dama dem ba koy jëf gars yi di gis tudd muy temps booy quoi bu ko defee gars yi commencé ñëw xam nga ba nii nii nii nii nii yàlla def xéewal quoi Euh, ñu leen di fàttali rek ne euh, képp koo xamante ni yaa ngi seetaan suñu émission rek ñoo ngi lay jaajëfal di jaajëfal baax baax suñu mbokk ndeysaan taximaan yooyu nga xam ne chaque jour euh, maanaam dañuy béggee 28 pro di ko seetaan tout le temps ñu leen di béggee di ziare ku mel ne ndeysaan Baye Moussa ak gars yi gars yi xam ñëpp ñoom ñoo nekk si garage tout le temps saa yi jàllee dañuy toog di ko seetaan di ko béggee ba si barki dem rek te jii nag ndeysaan ki ñu dalal dañ see sawar muy seexu ndax euh, jamono jii ñu toll ku ne xam na ne yàlla xam na ne ku waxal yàlla xam na ne soo seetaanee euh, TikTok wala nga dugg compte Cheikhou Temboy da nga fa gis euh, ay jamono ci ginnaaw mu mu joué loo xam te da la koy fàttali lu mel ne ay langa lu mel ne kaañu foo ah, sama su ma amee sama dara nangam nangam xeet yooyu nga xam ne maam su maam soo duggee fàttali lu bari bari maam Cheikhou lu tax lu tax maanaam nit ñi dugg si TikTok bi ñii ñoo challenge ñii ñoo ki kii Cheikhou ñëw. ndax ko ne xam na ne seexu moom seexu seexu mi ñuy gisee tiktok muy muy booy booylu ak seexu mi bokkut lu tax moom seexu moom ñëw rek jël jël yoon woowu noonu lan moo ko waral. waaw parce que dafa nekk loo xam ne que ñëpp mën nañ ci gis seen bopp mm-hmm. parce que yaakaar naa boo nee temps ñëpp jaar nañ ci mm-hmm. xam nga tey mën nga indi benn méthode di ko jouer mm-hmm. ñu bari duñ ci jaar mais boo nee temps booy kan moo fi jaaru si temps booy ku ci tollul weesu nga ko voilà dafay nekk loo xam ne que boo ko joué kon ñëpp a ciy gis seen bopp te dafa nekk loo xam ne que tey ji mën naa ne Sénégal ñun ñoo fi nekk si ñu koy def voilà donc ñu xam ne lii suñu talent la mën nañ ko tamit pour pas ñu proposer ko gars yi. Mm-hmm. bi ñu ko defee gis na gars yi bëgg nañ ko après ñu continuer ko. Mm-hmm. Euh, mu mel na jamono ji ñu toll Cheikhou euh, mën naa ne ay bis wala ay weer si ginnaaw wala su matee un mois si la yem génnee na benn clip clip bi itam day ndeysaan di toj réew mi ñëpp di ko bàyyi xel euh, maanaam Cheikhou dafa am ku nekk si suuf di ko conseil yi muy def ba si vidéo bi man seetaan naa ko maam Cheikhou artiste artiste comédien nest waa léegi sayxu moom nan nan la mënee bind benn benn kii way ko yow yow yow da way wala da ngay da ngay comédie man lool moom jaaxal. damay woy mhm. damay fecc. Mhm. damay comédie. Mhm. damay design. damay ñaw. man maanaam li ma boole moo bari artiste da nga war a complet lépp laay def rôle boo ma jox ci à part temps booy. rôle boo ma jox rôle bu ma nit jox ñi may seetaan xam nañ lu may wax. mën naa ko jouer ak rôle bu mu mënti doon. ak rôle bu mu mënti doon rôle polyvalent rôle bu mën naa ko jouer. mais wooy bi nag am na ñu nekk ci suuf ku mel sama manager maa ngi koy nuyu Pierre. di nuyu gars yi nekk sama ginnaaw di ma conseiller. Euh, voilà mais daal am na ñu nekk ci suuf daal mais yàlla baax na. <laughs> waaw Cheikhou euh, kenn rek laal bëggoon laaj parce que ndeysaan sa koor gi dama koy seetaan mais sama damay ree même avant koor gi sax maa ngi doon seetaan benn euh, kii bu ngeen joué benn vidéo bu ngeen joué fekk muy nelaw ngeen wat ko ba mu set yeewut maanaam bi mu yeewoo lamb bopp bi affaire yi xaw kii xaw ma wañaan muuma anam moom. wañaan wañaan wañaan waaw wañaan <coughs> wañaan moo ngi fi mu ngi si jàmm moom aussi di ko nuyu de passage mm-hmm. mook sëñ Mbàkke nekk ay gars yu baax yoo xam ne ka bi ma ñëwee tuubaa nekk fii di jouer mm-hmm. dañ ma ci fekk si di ma jàppale ci affaire yi mm-hmm. voilà mën naa ne que maa ngi jouer ak ñoom mais liñ may jàppale moo ëpp ba tax tey ma am encourage gën gën di jouer ak ñoom à chaque fois. Mm-hmm. wañaan la mu nekk idée boo xam ne aussi gars yi bëgg nañ ko dañ koy laajte à chaque fois. gars yi <laughs> léegi man li may laajte xaw man su ma duggee si wañaan moom rek daanaka mën naa ne su ma su ma teeloo tuuti rek mën naa yàq yi fi euh, maanaam wañaan muuma dafa muuma spécial wa ilaa nu mu demee ñu si bari loolu dañ koy laaj ndax sooy seetaan épisode yi ni mu koy waaw loolu nag ma ci mën a leeral lu bari. Mm-hmm. comme kay yéen yéen a ngi fi. ñun aussi ñoo ngi fi. di leen xool peut-être mi ngi sàcc di wax. mais mun ñu sukkandiku ci lool ne mën na wax. mais di leen xool après bu moment ak moomul gars yi dinañ ci xam. mais mais mais Cheikhou ñun mënuñoo nangu loolu. ñun mënuñoo nangu loolu parce que yow mi xam ne yow lay àndal tout le temps ngeen joué yu neex nit ñi di ko seetaan di ko bége normalement su moment war ngeen wala wala dafa am benn kii bu ngeen si nëbb si suuf. li ma leen mën a doon daal lenn la. muy yow ak yéen ñi seetaan. wañaan mm-hmm. suñu nekkee ak moom parfois day sàcc di wax mm-hmm. mais xamaguñ ndax mën na wax wala mënul wax ñu mm-hmm. ñuy sax leeraguñu moom rek moo ñu mën a leeral la léegi maanaam sëñ Mbacke am na ñu naan yéen a ndey ak baay dëggantaan njaay dëgg la wala du dëgg maam boo xoolee si Mbacke façon ñaaw bi yàlla def moom ah nga xool ma nii rek xam ne bokkuñu dara dara si Mbacke maa ko dàq ah si Mbacke ba pare si Mbacke daa am sikkin mën a ma sikkin di kon nu ñuy bokkee dara ah bokkuñ dara mais ay ay ay gaañal lañ nag macha allah ay xarit lañ. mais Cheikh est-ce que yaa ngi bàyyi xel benn affaire distance bi ma waxee yow nii rek yaa ngi yaa ngi fiy joué vidéo ndax sëñ Mbàkke googu noonu bi nga ko tuddee rek yow yow yaa yaa ngi jàkkaar yow yaa ngi jàpp ne sëñ nga jàkkaarul non non Baye Dame nga jàkkaarul 28 pro est-ce que est-ce que yaa ngi bàyyi loolu. waaw maa ngi koy bàyyi xel maa ngi koy xam naa ne bokkoo leen. Mhm. waaw maa ngi mais mais si biir wax ji sëñ Mbàkke gi ma tudd rek. ak li ah, la nag loolu la. waaw ah, loolu itam moo boo ko déggee rek daf may maanaam euh, si kaw loolu itam maanaam joué bi nga joué koñ bi nga dëkk moo xam par yenn saa yi nga dem fenn. avant ngay agsi fii nga agsi maanaam daaw romb fenn ñu naan ku ñàkk fayda kaay nii affaire xale lay def et cetera yooyu noonu daawoo ko dund. waaw ba léegi sax dama koy dund. Hmm. ba hmm. dama koy dund. léegi léegi yow léegi yow ba léegi yaa ngi dund léegi yow noon loolu noo koy mën a gérer. da ngay ku la xamoon maanaam ku la xamoon avant. Mhm. romb la nii di la nuyu. parce que li nga nekk peut-être neexu ko. Mhm. àdduna ñëpp. Mhm. mais dund loolu ba tey jii maa ngi koy moom. Youssou Ndour ñu mënuñu ko bañ ko wax donte que gënoon na bari nag mais jamono yi gën na wàññeeku parce que ñi la doon ñi la doon ŋàññi bu ñoo lay bëgg a jege tey bëgg nekk sa xarit bëgg nekk sa gain voilà donc lu bari li nga ci wàññeeku mais ñu ngi koy dund ba tey ah parfois nga romb waaye mu sànni la tànk mhm. mu dagal ma saaga. dagal la saaga yow. waaw mhm. mais nekk mu tamit di réagir mhm. ba nga xam ne que moo tëddee noonu. ñu dañoo ñuy bañ la. ndeysaan voilà. jërëjëf ñoo ko déggandoo euh, Seydou Tamboy li wax ndeysaan lu am solo la ndax euh, li olof Njaay naan jàmbaari fàq fàq dën mooy kii yàlla xam na ko. jàmbaari fàq tëdd. damaa dégg wolof mooy kii ndax euh, yàlla xam ne ne euh, lépp loo xamante ni wax na ko fi rek ku ko dégg xam ne jàmbaar la ku ko dégg xam ne maanaam aar bii mu nekk ak fii mu agsi dund na fi ay jafe-jafe yu metti parce que li nga xam ne moom lay def muy temps booy affaire xale kese la cundum te yàlla xam ne ne soo duggee kontam da ngay ree ba keroog ngay génn yàlla xam na ko kon bis bu demee tey ba agsi fii maanaam euh, li ma bëgg message bi ma bëgg jàlle foofu rek mooy jamono ji ñu toll dañoo toll jamono joo xam ne da ngay nekk si dara nit ñi duñ la bëgg yàlla xam na ko mais nga dem ba àgg fi fenn fi kenn ku ne naan seexu comme exemple rek li waa ji waxoon nee na euh, da ngay nekk ci ay jafe-jafe ñu naan doomi diw ji nga dem ba àgg fu kenn àggut ñu naan sunu doom ji kon mën naa ne jamono jii macha allah kaar macha allah àgg na foo xamante ne li li li li olof ñooy naan sunu doom ji fa la àgg teewul itam découragé wut artiste artiste la artiste comédien yàlla dogal mu dem ba gëm ne man dañ maa war a dégg fu ne dañ maa war a gis fu ne kon yaa yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan na ngeen bàyyi xel euh, li Seexu wax doomu aadama lépp loo xamante ne da koy def rek gëm gëm ko parce que xëcc su daggul dikki mbaam yéen euh, a si kaw loolu itam euh, koor gi nga xam ne ndeysaan joué nga ko ñu si bari maanaam dañ naan dañ da da leen a bett man sax duma bett parce que nee nga ma artiste comédien mais Seexu mi xam ne dañ kaa xamee maanaam si. TikTok kese dugal benn vidéo nga xam ne vidéo bi du mat 50 minutes waaye laa une heure de temps mu du mu mu mu joué 15 épisodes noo ko dundee ak ak gars yi maam da ngeen doon répété waaye laa nu ngeen ko dundee daal koor gi man man man itam maam scénario beeg yooyu ni nga ko bindee jaaxal na ma ndax dafa neex lool. waaw ñun du ñu répété. Mm-hmm. ñun dañuy dañuy ñëw rek joué. Mm-hmm. parfois dañuy dem ba fi ñu war a tourné jee mm-hmm. taxaw ku nekk génnee sa xalaat wañaan génnee xalaatam. sëñ Mbàkke génnee xalaatam. Euh, man ma génne sama xalaat donte wañaan dégg waaye dañu koy liyaar mm-hmm. comprendre nga ñu joué ko donc ñun du ñu répété mm-hmm. parce que yaakaar naa du ma ne répété ñëpp a koy def ah. mm-hmm. mais ñun man boog sama bopp dépassé naa niveau bu may répété ay TikTok maanaam maanaam maanaam daal dogguma la yàlla bu la dee doog su ma déggee sa wax maanaam formation théâtre da kaa def ba ba toog kon kon fii nii yaa ngi si ba léegi waaye waaye toll nga si niveau boo xamante ne maanaam formation bi nga jot def maanaam may na la loo xamante ne tey jii ku la tegoon caméra ne la seexu topp nga démarré. waaw loolu moom avant may formation sax. Hmm. ku ma teg caméra boo demee action damay démarré parce que formation yàgguma ci tuuti laa ci def lu ndaw mais am na lu ma apporté loo xam ne que man man santir naa ne formation bi ma jaar donte que ñetti fan ñeenti fan la am na lu ma si jàngee ko am na fu ma yóbbu tamit comprendre nga mais ñun man moom du ma te ñu may tourné lu ñu répété mais bu dee leneen la keneen di ma joué loo loo xam ne contrat la wala beneen site bu ma répété loolu ko bañ parce que contrat moo fa yóbbu mais man li may rek rek rek du ma répété waxuma nag man da dépassé naa répété waxuma ko de damay damay répété ba tey mais man li may joué nii du ko répété ma keneen jëlee di ma répété nag fay ma damay xam ne lii contrat moom moo laaj loolu mais man moom du ma répété ndeysaan euh, nee na moom du répété su dee nit da kaa jëlee fële indi ko nga xam ne contrat la dafa am lu dox seen diggante daanaka répété incha allah su ko defee itam ndeysaan ñuy ñaanal rek euh, euh, Moustapha Mbaye nga xam ne àdduna bi ñëpp xam nañ ko Moustapha Mbaye saapar saapar di ko ñaanal suñ borom xare ko àjjana si daara jëy rasulullahi ak weeru koor wi ñu nekk ndeysaan nga xam ne barki démb euh, si Abdou Ndugum Ndugum ak ñoom seexu mi dañ faa ànd defal lu am solo ndeysaan yóbbu fa ay ay teraanga yu bari Euh, ñoom itam ñu leen di jaajëfal baax baax muy groupe Baol Art euh, si kaw loolu itam euh, Seexu bëggoon nañoo xam maanaam sa diggante ak maanaam sa moroomu artistes yi maanaam nu nu ngeen di dundee nu ngeen di dundee parce que itam soo gisee ma laaj la loolu du dara parce que tey su ma la ko laajee rek am na ñoo xam ne tem seen xel ñaaw ñu jàpp ne da nga am ak kenn jafe-jafe déedéet loolu taxul ñuy laaj waaye maanaam nu ngeen di dundee seen biir parce que Seexu mu ñëw ñi ñi ñi ñi nga xam ne dañuy challenge ñi nga xam ne dañuy comme ni nga ko waxee artiste comédien lañ yow nga indi yow nga ñëw indi indi temps booy nooy dundee ñoom ci loolu ak maanaam gars yi nga xamante ne ku mel ne wañaan ak Sëñ Mbàkke noo ñoom ñoom dañ doon dund loolu avant ñu lay xam wa ilaa dangaa ñëw dañoo ñëw rek nga nga teg leen ci yoon bi ñu ñu ànd parce que Sëñ Mbàkke maam li ngeen di damay dem ba man dama naan man Sëñ Mbàkke est-ce que laqaru woonu ci suuf di répété temps booy bi <laughs> non non artistes yi moom mm-hmm. aw ñoom benn problème moo waxaat ko artistes yi aw ma ak ñoom benn problème mm-hmm. muy Dakar gi mu bàyyi ko. Mm-hmm. muy Touba gi. Mm-hmm. amu fa benn artiste problème. Mm-hmm. concurrence nag mën na am. mais man du ma concurrence ak benn artiste fii waxee man du ma benn artiste. parce que déjà bokk ñu lu ñuy def. Sénégal boo jëlee artistes yi. mel man maa ci def temps yi ci des seen i bopp la ñuy def ak seen i xalaatu bopp. seen inspiration bopp. man concurrence mu ak benn artiste. peut-être ñoom bu ñuy concurrence mën naa am ñi concurrence parce que concurrence doo xam. léegi man du ne. ma waxaat ko wax naa ko émission bi ma toog toog toog du ma ne mën man cameraman bi yow nga jël ma man du ma ne maa fi mën. Mm-hmm. ma ne maa mën de. na mais ku bëgg a mel ni mën. Mm-hmm. faaw nga liggéey man dèjà damay liggéey. Mm-hmm. ma kenn ci lenn. yaa ma gën xam concurrence moom benn artiste parce que bokkuñu lu ñuy def yaakaar naa man sama xel mu gàtt boog balaa ngay concurrence dafa balaa ngay concurrence ak nit dafay fekk ngeen bokk loo leen di def voilà mais man gars yi li ñuy def ak li may def bokk man dèjà xale laa xaw ma sax luy concurrence mm. kon concurrence moom kenn moo wax ak encore ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom mm. muy dakaar mm. muy tuubaa muy Kaolack muy Mbour Seydou maanaam xale laa mënuma kaa dégg parce que say Sayoxu temps booy moom maanaam dana la yóbbu fu ne euh, am na si sax ñoo xam te ne ndeysaan maam dañ naan Sayoxu dafa dafa njoor rek waaye xale la waaye man Sayoxu bii ma gis moom du xale ak maanaam li ngay joué si vidéo yi itam jaaxal na nit ñi trop trop trop trop trop. maanaam man. Mhm. incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ñuy dund. Mhm. man chaque jour damay dëkk si di leen jaaxal man. Mhm. eh damay dëkk si chaque jour di leen jaaxal. parce que personnage su xale bi rek nekkul moom moo nekk ci man. kon man damay dëkk si di leen jaaxal peut-être lii benn jaaruwaay la bu ndaw après dinaa leen indi personnage bu gën a garaaw xale bi mais man moom xale la vingt ans kese laa ñaar fukki at kon Cheikhou daal maanaam su ma déggee sa wax si biir loolu Cheikhou tey ku ko woon si série boo xamante ne bu bu doy waar la nga xam ne maam ay intellectuel kese ke seq Cheikhou moom su ñëwee dana jàll moom man sama jàll hmm. maanaam tiituma sama talent hmm. xam hmm. yàlla bañ ko nangu mais man sama jaal man fu fépp fu ma taxaw Sénégal série bu mu mën di doon bu ma taxawee fii. xam nga dèjà wax ji day demaat euh, mën na dem ba ay cent ans ñu génne laal la ko. Mm-hmm. série bu ma taxaw toj ko fii laa ko waxee fii. Mm-hmm. série bu ma taxaw. Mm-hmm. toj ko 28 pro bii laa ko waxee. man ragaluma sama talent man. parce que lu lu lu nekk si ma la loo xam ne que man sax mënuma laa wax lii la. des fois ma wax benn mot boo dafa may jaaxal des fois loo xam ne dafa may jaaxal. mais xam ne après du yow quoi yow lu lu lu nekk si yow loo xam ne que forcé woo ci dara. amul série bu may taxaw di tiit amul ku may taxawal di tiit ak artiste bu mu mën di doon su ma jàkkaarloo ak yow soo xawee yox yoxal tuuti ma dal sa kaw euh, si kaw loolu itam gis nañ ne jamono ji ñu toll euh, nit ñi bëgg nañ ko lool macha allah kaar waaye man damay seetlu euh, à chaque fois yenn jotaay yi Seexu su fa demee xale yu ndaw yi dañ ko bëggal seen bopp yàlla xam na ko man loolu ay vidéo sax dama koy gis ba si mag ñi rek am na ñoo xam ne dañuy ñëw di ko bëggal seen bopp sayxoo yi nii sayxoo yi nii léegi yow loolu noo koy dundee sa diggante nit ñi maanaam doo dem ba am am am problème pour gérer loolu noonu. non du ma problème moom. Mm-hmm. du ma problème parce que loo xam ne que la. Mm-hmm. ba muy soog a ñëw jaaxaloon nañu. parce que ku ne la seexoo nag maa ne sax mm-hmm. da ngay tiit. waaw ki wax nii. mais da dem ba xam ne loolu liggéey bi nga nekk moom moo ko laaj ko quoi. jaaxaluñu xale yi moom xaw ma seen fay. mais li ma ñaan mooy. su ma tëggee fenn su leen déggee seexu tëgg na fenn. xale yi ni nga ànd seen yaay ñëw seen pap ñu mën leen dagal dagal ticket bu dee xale yi rek ñoo ñëw duma am xaalis su dee xale yi rek ñëw duma am xaalis mm-hmm. te ñu ñëw sax mm-hmm. war a seetaan ñëw fekk la fa ngay joué mm-hmm. ndax mbëggeel gu ëpp gi voilà xale yi man dañu maa bëggal seen bopp man damaa yàgg bëgg xale xale bu nekkoon fii dama am jàmm dama koy jël di fopp ko kaf ak moom affaire yooyu noonu man noonu laa mel quoi voilà mais nag succès bi nii ak gars yi nii seexu seexu musuma jaaxal parce que ma man mosoon naa ko gëm ne man dinaa toll fii te tollaguma fenn maa ngi ñaan yàlla mu gën nag jaaxlu de. Euh, ñoo ko dégg noonu ndeysaan euh, tey ki nga xam ne moom laa dalal ci émission daanaan yi yàlla xam ne ne sama xol dafa sedd ndax euh, ku ne xam ne ne jot yombut waaye nag comme te yàlla dogal na mu moo may ñu temps bu ndaw si temps ñu mën a ñëw fii nii def ak moom émission dañ lay sant di la gërëm mm-hmm. kontaan nañ lool ci yow ndax jamono ji ñu toll yàlla xam ne ne ku soxorul laa wax. xam ne maanaam yëf yi yaa ngi ciy def lu am solo lu ñëpp di bàyyi xel kon su ko defee rek ñu leen di fàttali ne leen yéen a ngi ànd ak 28 pro ndeysaan euh, site bi site bi nga xamante ne réew mi yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel te képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñu bi euh, suñu vidéo rek na nga dem sa compte ba nga abonné ndeysaan dolli ñu jom euh, si kaw loolu itam bëggoon nañoo bëggoon nañoo laaj maanaam Seexu lan mooy ay projet si jamono jii ñu toll maanaam projet yi nga xamante ne tey jii nii moom nga tënk moo xam loo xam ne looy programme la parce que itam artiste day toll foo xam ne day am ay événement <laughs> man li may programme bari na de sama projet bari na de bokk na sama sama rêve man mm-hmm. hmm? dem ba nekk gi nga xam ne comé comédie Sénégal tey mm-hmm. boo nee boo ne mawul benn mm-hmm. boo nee benn man nga siy teg samay projet tamit taxawal lu mag loo xam ne que tey jii ñu bari dañ ci gis seen bopp génne sama personnage yi nekk ci man yi nga xam ne que bokk na sama rêve tamit bokk ci série yi gën a mag fii Sénégal mm-hmm. bokk sama rêve daa bëri de allahu akbar non maanaam soo gisee ñu soo gisee ñu laaj la loolu seexu maanaam jamono jii nii maanaam xam nga doomu aadama bu ne par exemple da ngay gis Wally Seck ñu baal ñu baal ma si te parce que doomu aadama bu ne mën ngaa def sa émission ba mu ba mu jeex te ki nga xam te ne boo ko si waroo ko see tudd mm-hmm. waaye comme damay jox exemple rek tey ji Wally Seck day jékki def benn événement nit ñi ñëw loolu moo tax ma ne la Seexu ban ban ba ban ban projet la taxawal jamono jiwu am na événement bu muy waajal wa ilaa. non waajuma événement nag. Hmm. waajuma ma mais maa ngi waaj ay ay épisodes yu garaw ci côté tabaski Tambooy ngi ñëw incha allah. seexu Tambooy. Hmm. seexu naa mooy wax ak yow mais seexu Tambooy war naa def anniversaire. Hmm. préparation yi vidéo lay doon. war na def làmb. préparation yi vidéo lay doon làmb yi sa vidéo lay doon. Ah? loolu laa waxoon ay séquences. Hmm. ay hmm. bari neex kese. Euh, ci kaw loolu itam euh, bëgg nañ laa laaj maanaam parce que jamono ji ñu toll nit day nekk si TikTok bi euh, di si def lu am solo ñu koy tiital naan la TikTok ko amul gàllaaj doo si nekk et cetera maanaam yéen loolu yéen a ngi koy dund maanaam ñu ñoo ngi leen di woo di leen expliquer loolu wa ilaa maanaam yéen gëm-gëm boobu noonu moo ngi si yéen. parce que parce que parce que waaw. man man nga wax man wala yéen. yéen yéen tiktok góor ma yow. ma leer kon yow. man ku nekk ak ni ngay ni ngay dundee li nga gëm. Mhm. mais man. Mhm. tiktok rayewul yàlla moom mooy rey. te fekkee tiktok day rey man naa dee. Mhm. benn parce que du ma dégg ñu lii day rey ma génn si. loo xam ne que yàlla mooy rey ñun fi ñu toog nii xamuñu ndax fi jóge kon bu ñu laa tiktok mooy rey ba génn si. loolu yow la man sama gëm-gëm weesu na foofu man li ma gëm bëgg ko muy lu baax. ma dem di ko jëli ay da ngay dee da ngay nangam loolu taxul ma wàññeeku yàlla moom mooy rey mais TikTok rayewul encore une fois TikTok rayewul voilà. ndeysaan euh, comme te yàlla dogal na booba léegi ñooy waxtaan euh, liñ la laaj yëpp am na solo Seexu wax nañu fi mu jaar jafe-jafe yi mu si dund ba yàlla dogal ma agsi fii kon euh, li muy firndeel foofu rek mooy képp koo xam ne da nga yëngu si dara bul découragé soo découragé rek suñ borom Euh, mën na laa seetaan parce que maanaam gëm-gëm moom moom moo lay àggale fu ne kon si kaw loolu itam maanaam dañu dañ laa bëgg laaj lu ndaw rek bala ñoo tàggatoo lu ndaw. Mhm. maam seexu ak ak ni ni jamono ji ñu toll xam dañ ne seexu temps booy mhm. mais seexu xam moom mooy xale xale lu lay dundee xale yu jigéen ñi si jamono ji ñu toll. <laughs> loolu moom yaakaar naa tontu bi du du gudd torop mhm. xale jigéen ñi samay xarit lañ. macha bëggal ma seen bopp voilà. di ma nemmeeku di ma di ma di ma di ma di ma jox seen temps daal. Mhm. waaw mais sequma ci kenn lu lu ñaaw wala lu kii samay xarit lañ daal xale jigéen ñi samay xarit. Seexu am na soxna. amoo soxna de. amoo soxna déedéet. loo tax amoo soxna loo takki soxna. ah peut-être dafa jotagul rek man xale la euh, su ko defee rek ngeen xam ne ku Cheikhou euh, la ñu invité woon tey temps booy si émission ndaanaan yi euh, bëgg nañ lu bëgg nañ lool ci moom kontaan nañ lool ci moom ndeysaan ndax ku ne xam ne ne temps yombul kon bis bu ñëwee yàq tempsam yëpp ngir ñun ndeysaan dañ koy sant di ko gërëm su ko defee itam di santaale ku mel ne wañaan mi nga xam ne moom lay àndal ak Sëñ Mbàkke ak képp ko xam ne artiste comédien nga ñu lay jox sa wàccu ay baax baax Cheikhou lan lay tàggatoo ak lan lay wax ay fansam waaw man li may tàggatoo mooy nuyu sama fans yi di leen gërëm. di waaw di ñaan yàlla euh, jaamu ci senegal ku ne xam na activités yi ngay nekk day bari. ba ci message WhatsApp yi sax ñu bari naan si doo tontu doo nangam doo nangam alors que jot bi moo dul bari bu ñu sañoon chaque jour dañuy waxtaan ak yéen. mais day xaw a jafe. di leen ko jégalu. Oh, di sama yaay sant sama papa. sant sama maam sama xarit yi may àndal. di sant yàlla julli si sant Serigne Touba di ñaan yàlla Serigne taxaa yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak wér. di ñaanal artistes yëpp nag képp ki nga xam ne li nga bëgg sa xol yaa xam yàlla na ko yàlla defal muy lu gën si yow mm-hmm. te dëppoog li la gënal mm-hmm. voilà di nuyu ñëpp mm-hmm. sant ñëpp di sant di nuyu sama manager Pierre voilà di di di di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ndeysaan Seexu nee na mooy gërëm ñëpp euh, di sant ñëpp euh, di sant képp koo xam ne rek yàlla dool na yéen a si vidéo yi di sant fansam yeeg ñëpp loolu di sant aussi ñi may jàppale ku ci mel ni Mouhamadou Lamine Baara Mbeng mhm. ak Yacine Sarr mhm. Milk Zo mhm. borom Ndakaaru ah ak euh, kan sax maman sant ñëpp bàyyi ma kenn ndeysaan <laughs> jërëjëf kontaan nañ ndeysaan kontaan nañ ci loolu euh, Seexu euh, tey moom ndeysaan temps boobu indiwu ko tey temps temps grand bi la indi ndax ku ku dégg ni muy waxee xam ne ton bi nga xam te ne moom moom lay joué si vidéo bi indiwu ko loolu itam dañ koy sant di ko gërëm tey mag la gis ngeen ko tey mag la ndeysaan kilifa la su ko defee itam ndeysaan may sant euh, gars yi nga ñoom laa ñoom laay si émission bi euh, ku mel ne euh, Seydina Omar sama jinne caméraman ànd ak sëñ Fallou ak gars yu baax yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo si ginnaaw di leen sant di leen gërëm te di leen xamal ne rek maanaam émission bi di leen ko bàyyi xel émission ndaanaan yi la vingt 28 pro lay daw incha allahu rabbi te képp koo xam te ne ndaanaan nga di def lu am solo incha allahu rabbi danañ la seet si kontaan nañu bu baax sant nañ leen. gërëm nañ leen. di wax ne gars yi man Cheikhou man. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi may suivre. Mm-hmm. nañ ñëw topp ci ma ci site bii nii parce que. Mm-hmm. maa ngi waaj ak ñoom ay projet kon ñëw leen ngeen abonné toog xaar ma.